waaw comme ni nga gisee nii xeex bu métti moo fi am waaw cool cool chaise yi taf xeex bu métti moo fi amoon xeex bu métti moo fi amoon xeex bu métti assemblée générale APR Pikine tas na Li gen tap ni mwen la. Li gen tap ni mwen la. waaw loo xam ne doo doo jox ñaari baat

waaw comme ni ngeen ko gisee ne ah bon xeex moo amoon assemblée générale APR Pikine xeex mu métti dóorante ay chaise chaise yaa ngi nii gis ko lu ci bëri yàqu na oh, chaise bi xeex bu métti moo amoon waaw bon lu ko waral ko on va essayer de voir Guys, full white, full Omar, dañu lay filmé de, dama wax leer, daa ñu jël de, dama wax leer. mu ngi jël de yow yow Omar yow kii quoi de la première kii boo def ay gars yi jël mag yow ay. yoon